bitilka tahiyatan maimunatan mubarak allah wahiya asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa mbokku jullit yi mbokku taalibe yi góor jigéen mag ndaw noo ngi leen di nayu te di leen ziyaara tabaarakallahu di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi ñu yàlla jiital ci diine ji di xulafa yi tabaarakallahu ak aima yi waaye tamit tabarakallahu ak sëriñu daara yi ak mboolem rek koo xam ne nekk na ci bërëb di yëngu te la muy yëngu dellu ci diine di ci jiital nag sunu xalifa tabaarakallahu sëriñ Babacar si Mansour di ko ñaanal fan ak wér ak mboolem lu Seyd Alxaaji Malik njaboote di xaasal na yoo ak ziyaara sunu xalifa waajur Cheikh Seyd Mouhamadinil Kabir mi nga xam ne tey moo toog ba waajuram toogoon sëriñ Babou Cissé góoru yàlla gu mag googu di ñaan yàlla yokk leeram tataas ñu ci barkeem di ko jox rek na yoog mboolem ku sëriñ Babou njaboote min jihati tini aw fi diin tabarakallahu dinayu directeur Haj Lamine kante mi nga xam ne sunu soppee la sunu broda la di ko ñaanal yàlla gën ko yëkkati te yëkkati telem bi tabarakallahu ba fa ñuy dégg télé yu mag yëpp ñu di ko fa dégg ci barke weer wi ci barkeb Seydina Muhammad di nuyu mboolem personnel bu mu àndal liggéey bi waaye di xaasal wa nag sama caméraman yi tabarakallahu di xaaj Boubacar ak Moussa ak Basina tabaarakallaahu Haj Babacar di ko nuyu di ko ziyaara di nuyu ñëpp rek su ko defee ñi dellu siwaat ci sunu programme bu mag bii di waxtaanu koor ci tele bu mag bii di ay Africa TV yow mbokk mi nga xam ne ba koor gi dooree ba léegi yaa ngi dagg sa yitte di topp programme bi ngir diine ñor gi nga xam ne ñor na la ko su defee maa ngi woon ak ñeenti ñi nga xam ne ñoo yilif àddina ñaar ñi ay yéefar lañ mooy dañoo bañal yàlla ak nguuram ak buuram waaye ñaar ñi nag ay julit leen kenn ki moo di Zulqarnayni waxoon naa la ko keroog borom xam-xam yi nag wuutee nañ ndax Zulqarnayni yonantu la wala du yonantu waaye jumhur bi soo demee ci azhalul masalik moom lu mu saxal mooy al askandari te moo di Zulqarnayni ak ki nga xam ne moo di xadir ak ki nga xam ne moo di luqumaan nee na ñett ngi nii ñoo xam ne dañoo siiw baax lool nekk ay borom mi may ca yàlla ba tax yàlla tudd leen ci biir téeréem bu tedd bi waaye nag nekkuñu ay yonantu kon daal yonantu la wala duñu yonantu sunu borom moo xam moo tax góor ga nee ne waaw ah, wa fi nubuwatihi aw kaw wa fi malakan qul innahu saalihun tusdaq wa tuxtarami nee ne wuutee nañ ndax xadir nitu yàlla la wala xadir yonentu la wala xadir sax malaaka la ndax am na ñu wax loolu Maodo daal nel innahu moom xadir saalihun ku baax la innahu moom askandariya muy zulqarnayni saalihun ku baax la innahu moom luqumaan saalihun soo ko defee tus dàq kenn du la fenloo wa tuxtarami te ku la gis jox la cër ndax fekkee ay yonentu lañ nga weddi ko rek weddi nga kenn te yaa noon laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli tabaarakallahu su ko defee zulqarnayni moomu maa ngi doon la wax jataay ya mu doon am ak borom xam-xam yi di waxtaan ak ñoom bi mu leen waxee ne sama yéene mooy ma toog ndax àddina jarul puugare su ma xëyee dem penku suba ma dem sow beneen yoon ma dem fële man daal naa toog li ma war a def ma di ko def gaañi na ko ah déedéet demeewul noonu nag ne ko dem gi ngay dem sow demoo fa ngir puugare mais da nga fay dem ngir sa njaboot a fa nekk kon moo tax may président di Gambie te am na dëkk bu nekk si biir Gàmbi toog naa ba wàcc mosuma fa teg sama tànk royo zul xarnayni may président wu Sénégal toog naa Sénégal ba wàcc am na dëkk boobu mu ngi ci biir Sénégal xaw ma fa sax ma la ba fay teg sama tànk yow royuloo zul xarnayni ndax njaboot ga fa nekk seenug dund keroog bi nga nekkee buur di président la ko yàlla teg ci sa loxo baatin bi yàllaa ko yore jox ko Mikaayil waaye zahir bi yaa ko yore moo tax ku ci tànkam damm sax mu war a dem hôpital ëllëg yow la ko yàlla di laaj yal na yàlla jégal ñu waaye doy na waar kon gis nga zul xarnay ni gaañu na ko déedéet windeelul dem gi ngay dem du pour pogere mais pour xool sa njaboot si lu ñu nekk kon tabaarakallahu xaj baro moom nga xam ne sunu soppe la su ko defee loolu tabaarakallahu minni ilayk yal na yàlla mottali yéene yeeg naal yëpp defal ko mboolem président su ko defee zul xarnay nee ngi noonu keneen ki moo di Souleymane moom la ñuy waxtaanee tey moom moom ñëpp dëppoo nañ ne yonantu la ñëpp dëppoo nañ ne mu ngi bokk ci mursaliine yi yemul ci waay mu ngi bokk ci vingt cinq yi nga xam ne mooy twenty five personnes yi nga xam ne yàlla tudd na seen tur ci biir alquran Souleymane ci la bokk yonentu yàlla Souleymane ku yàlla teel a may la yàlla moom moo ne maa doonuloo baayam jii di daawuda daawuda ku bari woon njaboot la waaye suleymaana ci gën a siiw ala nabiyina wa alayhim assalaam lu tax mooy sëkkëre ba nekkoon ci daawuda di nubbu wëtu maam suleymaan moo ko doon moo tax ba si ñëw na yonent yàlla daawuda ñaari nit ñëw am problème kii sàmm la ki baykat la sàmm bi moo bàyyi ay gàttam ñu dugg ci tool bi yàqu ko mu indi ko ci yonent yàlla daawuda na ko àtte ñu kii ay gàttam moo yàq sama tool xam nga nu daaw da def dafa jël gàtt yi jox borom tool bi jël tool bi jox borom gàtt yi na ko dem leen xam nga fekkonte ne sàmm bu yàqu toolu jàmbur ñi def la noonu di nga téye say nag ba ñu génnee nag di xultu Souleymane am 12 ans xaj Babacar ne lu xew ñu ne ko sa papa kat lum ñu àtte yàlla moo noon ko faxkum bayna naasi bil xaqi wala tatabi wala tabi al hawa waaye jëfeewul loolu pour wax la rek àtte foo ko doogalee rek am kum arrangé wul ñi dal di wat suleyman na len ñew len xale bu tuti ñew na ko papa no até mu wax mu ne ko ah man nak amna benen gis-gis di xam-xam bu wuté bi nga até mam dawda nako ko waxal ma deg mu ne ko su doon man day damay jël nag yi jox borom tol bi muy ratti ci mew mi di tos ci pou yi xam nga tos babakar moy tax so jiwee suno do engrais ma jël borom gatti jox ko borom jox ko tol bi mu ko ba mel na ku nekk doog a jël sa alal daaw dana ko lii may sawaab de gis nga moo tax olof ne dëgg puso bu réer la mag dina ko for xale dina ko for keroog nag maam Souleymane moo for puso ba waaye daaw magum yàlla la magum yàlla du bañ dëgg président soo ko waxee dëgg mu tëj la wala mu pexel la ah du magum yàlla magum yàlla day nangu ko ko wax dëgg moo tax mu ne ko daaw da li nga àtte nii mooy dëgg jël gàtt ya jox borom tool ba ne ko dal ratt ci meew mi. di jëriñoo ci gàtt gi waaye bul jaay nag bul jaay bu rey mu ne ko nag borom tool bi jëmbatal deferal ba mel nu meloon ku nekke jël saalal alal loolu bi mu koy def 12 ans la am yàlla na ñun ñoo donnaloo Daawuda Suleymaan mu màgg nag nguuru baayam nga mu boole ko gosam gis nga moo tax nit soo ko wuutoo su defoon benn nga mën a def fukk ndax yow da nga am sa cërug bopp bés boo ko doonnoo yàlla jël cëree jox la cër yi gën a bare maam Suleymaan màgg na ko yàlla dama la ñaan nguur goo xam ne waxuma ñu ma jiitu de mais sama ginnaaw mbindeef dootul ko am te xam nga yonantu lu mu ñaan yàlla yàlla jox ko yàlla may ko nguur gi waxuma nit ñi de mais jinne yeeg mala yeeg njanaaw yeeg yëpp dañoo bokk ci nguurug Suleymaan xaj Babacar yàlla mën a maye Suleymaan su soxlawaan jama or jinne yi ñooy dem ci taatu géej génne indi nguuram mel noo xam ne benn nguur masu koo mel maam Souleymane xëy na yàlla dama bëgg mbindee fi nga may ma benn jour ma dundal leen at la ko wax yàlla na ko dundu mbindee fi man rek maa ko attan at bëri na Souleymane Souleymane na ko kon nga may ma weer mu ne ko weer bëri na mu ne ko semaine mu ne ko semaine bëri na mu ne ko kon benn fan mu ne ko fan sax bëri na jëlal añ yàlla am na loo xam ne cërëma maam Souleymane mbindeef bu ne mu fexe ba xam looy dundee ñi ne déedéet mbindeef li mu su namoon mooy nit ñi mu woo jinne yeeg góor ñeeg jigéen ñi ñëpp di togg di jal mu ne ko yàlla danga may dimbale nag moo tax nit mënul mucc mukk ci sàkku ndimbalu yàlla ba aljana haj Babacar soo fa duggee da ngay continuer di soxlaal yàlla fekkee ku dugg aljana dootoo na mu dara dootoo soxlaal yàlla kon yàlla nguuram day jeex di ak am solo yàlla dogal yalla nako dina ci si gis nga ñam luy tax mu farox climat la motax soko jëlon duggal ci frigo bi man na fa am diiran bu yag du yaq yalla nako ko luy tax di farox di nekk ci jawu ji dina la ko teyel nga togg ay wer tabarakallahu haj cameraman yi technicien yi ñi ngi ne luñ amone ci ta jeexna suko defé nga tek fofu sa baram li ma digaaleeg yow incha allah dinaa ko matal di la wax tamit bu ko fàtte suba ci heure bii na nekk sa yitte ñu continuer ak yow ci Souleymane ma wax la na mu daan wooree ak taxawaayam ban position la amoon ndax nga nattu ko ci sa bopp tabarakallahu su ko defee soo ma toppee lépp lu aju ci koor rek balaa koor gee jeex danañ la ko leeralal su leeree sunu borom la su lëndëmee ci ñun la di ko jéggalu yàlla di ko jéggalu mboolem jullit rawatina kuy seetaan programme bu mag bii إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته